jus jus bi foo ko natt ci neexaayam romb na ko je lance un défi di samay wax waxu addi jus la nee na yéen ñi waajal li nga xam ne moo di élection de 2024 seen campagne yi leer na ma ni ku ci ëpp li ngay jënd yaay falu jiite réew mi incha allah fàttewuma ñii nga xam ne ñu amee mariage baptême conférence ba ci anniversaire gaaw leen gaaw def seen commande contact bi nekk ci 78 101 13 20 wala 77 358 34 66 adresse bi moo ngi nekk Golf Sud Dakar cey addi jus dëgg ci gën su mën ko jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi safo jàmm ji info di leen jaajëfalaat saa su ne ànd bi ngeen ànd ak euh, suñuy euh, programme mbokku téléspectateurs yi euh, di leen wax ne nag tey nag ñoo ngi seet si ki nga xamante ni di naataango di suñu doyen ci wall bi ci milieu bi nga xam ni média ñu di ko santaat bu baax ci disponibilité ginnaaw ba mu jógee ziyaare gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di El Hadji Fall Ndiaga ñu bëri xam ko jamono gi dem nekk ki nga xamante ni tam chroniqueur fii ki euh, Sen TV groupe des médias euh, ci jamono yi nga xam ne émission yu am solo yi nga xam ni dañuy defar kër gi euh, muy waxtaanee ko El Hadji Fall Ndiaga ñu ngi lay nuyu ginnaaw ba nga dellu si jàmm. Cheikh Mountakha sama sëriñ maa ngi lay nuyu di nuyu jàmm gi di nuyu tamit soppe yëpp yëpp yow bu ñu ñaar kenn la. ndax euh, dafa am foo xam ni ñoo fa démarré ñoo fa nekkoon euh, lépp rafetoon te ba jikko jëma la xamee woon euh, ci rafetal ak ci nekkin laa la xamee sànq rek avant ñuy waxtaan fas naa ci sama xol ni sama waa ji changé wul na mu meloon ba tey la mel ci worma ci kàddu yu rafet te lii ma la seedeel ku jaxasoog yow te xam la na lu mel nii yàlla na site bi dema dema dema dem ba doon télévision. jërëjëf muy ku baax eh, El Hadji Fall ginnaaw si sax du seede gi nga xam li nga toog sunu kanam eh, bokk nañ ci milieu bu nga xamante ni nekkoon nañ fa wax dëgg ngay doxal lu rafet waaye ñu bëri xam la ki diine nag eh, dama ne El Hadji Fall ku ko xamul doo ko comprendre à travers ci média bi mais bu leen seqee ci biti ngay xam ni kii ku bëgg sunu borom la ku naw diineem la El Hadji fi ma jëm mooy ba nga ziyaare gi yonent bi sallallahu alayhi ziyaare bi nga fay dem euh, mbir mi naka lala la ndax euh, def la mbetteel maanaam euh, jullit bu nekk nag am nga yéene dem fa mbir mi nan la la ku dajale sax sa xaalis muntaxaa muntaxaa ku dajale sa xaalis ba am cinq million ba six million boo demee dagg bee sax dina am mbetteel asuma koo xam ne dañ laa woon da ngay dem man samay mbir sama mbir mooy amoon naa yéene dem màkka dama daan toog ci tele bi sax ni ren moom. moom bu avion bi doon dem sax damay lank te boobu xamaguma damay dem ñi ma seetaan ñu ñëpp xam nañu ni ren damaa amoon yéenay dem màkk ci weeru koor bi dama dem ànd ak sama benn xarit ku baax mu ne ma nañ dem ziar ji Cheikh na Ahmada Tidiane Chérif biñ demee ziar ji Cheikh na Ahmada Tidiane ñu am fa fukki fan ak ñaar laylatul qadri fa la ñu fekk muy jàllo sama benn xarit bu baax yàlla yàlla fay ko bi ñu demee ziare ji Cheikh Ahmed Tidiane fekk wax naa ko ni ko avant ñuy dem ma ne ko damaa bëgg bala ma ziare ji yonent bi dem ziare ji Cheikh ma Tidiane ma dem ziare ji Cheikh Ahmed Tidiane ñetti fan après ma ñibbisi ci la xalifa général des xaadir Cheikh ay dara doomu Cheikh Abdoul Aziz bu baax bi woo téléphone bu fekk man euh, nelaw ba ginnaaw tàkkusaan ma jug di julli tàkkusaan mu woo ma ni ma oustaz Ndiaga la may woowee ne ma ban année nga demoon màkk ma ne ko seex bi eh, man mosuma dem màkk man ma ren di nga dem màkk mais ci façon bi mu la yóbboo màkk moo neex parce que nit ñi gis naa ñuy baatare ay billets ci àdduna mais parfois damay wax nit ki may nga ko billet ni da kii daal moo fi sës dama koy jox billet xam nga day am wala nga ne yóbbu naa diw ak diw ak diw moo fi sës waaye bu fi keneen nekkoon sax du ma ko jox billet bi day am am ñoo xam dañuy yóbbu biyee ci rafetal day am nit may na nit xaalis te jéppi ko waaye façon bi mu ma yóbbee màkka moo neex mooy daf maa woo ma ñëw mu ni ma bu ma gërëm bu ma sant loo fi liggéey la teg ci benn baat boo xam ne moo ma dàqal ni ma bu ëllëgee lu ma am sama maam sama maam rasulullaay yàlla naa ko bokk ak yow xam nga loolu façon bi moo neex ñaareel ba gis naa nit ku ñu jox billet rek te accompagner wuñ ko ndax màkka dafa metti te nit mën na laa may billet fekk te jamono tabaski lay tombeel nga war a régler sa biir kër war a régler boo dee dem war a régler seritier yi ngay indi ndax aaday Sénégal la bu dee dangay ñëw sax nga ak sa waa kër képp sa di nga ko def moo tax gis naa màkk ñoo xam ne bi leen mayee biir dañoo sonn màkka mujj nit ñee leen di jàppale waaye dafa maa jox bien jox ma lu ko lu mu àndal bu yemoon si moom rek mu neex mais njabootu boppam njabootu deretam ay doomam ak i soxnaam ma ko jëlaat alal ju bari tegaat ko sama loxo kon ki man ki ma yóbbu màkk damay wax ni ah ku sañoon ku ne nag dem màkk waaye ku sañoon ki ma yóbbu yóbbu la jóge si sëtu Rasulullah di Cheikh Ahmad Tidiane ñibbi si sëtu Rasulullah jox la billet nga dem seeti laay ah man li ma am neex na ma <laughs> neex na. El Hadj Fall li nga am neex na tabarkàlla mais sa relation tuuti ak moom wax nga ko euh, naka la demee parce que tamit euh, li nga wax ni dëgg la euh, xëy na mën nga ràññewu ci biir kër gi cofel bi yëg-yëg bi mën na am mais seen relation ñaar laa bëggoon tuuti ba tax na tey mu dem ba tey bii tey am ci nii. Cheikh Naama Aydara xalifa général des Xaadir 2006 la Cheikh Abdoul Aziz doomu Cheikh Taalibu bi surtout Cheikh na Cheikh Saad bu bi génn àdduna moom Cheikh Abdoul moom Cheikh Naama di xalifaam mu doon ku am fit ku am jom ku ñime li mu doon ba mu naan maay xalifa Cheikh naa Cheikh Saad bu boobu doonagul xalifa général ah xam nga loolu dafa yéeme yàlla bokk yàlla boole ma ci tariixa Cheikh na Amada Tidiane mu ni ma man sama maam mooy rasulullah yéen ñëpp maa leen boole yilif boo demoon këram dafa am ay taalibe yoo xam ne murit lañu ñii tiijaan lañu ñii xaadir lañu ba ci chrétien yi ñoo xam ni gëmuñu ko dul moom mais loolu lu mu liggéey la mu jël ma teg ma ci wetam ci jamono jooju feeñaguma télé moo tax télé boolewuñu média boolewu ma ak Cheikh euh, Naama dara maanaam moom moo ma def li ma doon kon <laughs> ba may tout tànk laa la wax xam nga bu ñu naan la ay 2006 boo ko génnee samay at mu jël ma teg ma ci wetam jàppale ma dimbali ma di ma yónni ba pare xaw ma sax luy communication mun ma yaa sama communication mu doonoon lu dis xaw ma ñu ànd di dew di doxee noonu ba jamono ñëw tey bu ñu àndoon bu ma am ay taalibeem yi sëkku jébbalu ci moom tàntam buñ ma séenee dañ naan si ab Cheikh naa maa ngi ñëw maanaam ku ma séen da naan Cheikh naa maa ngi si ginnaaw dem na ba sama jëmm fu mu nekk moom lañ may moom lañ may xoolee mu doon ku mën a ànd ak nit da dimbali ci alalam dimbali la ci xalimaam dimbali la ci xelam dimbali la ci dooleem moom Cheikh naa ma ay dara relation boobu nag 2006 la ñu ànd boobu ñëwaguma Dakar ah boobu te média boolewuñu mu dimbali ma xamal ma lan mooy boo yoree communication kilifa ba tey kilifa yu bari ma yor seen communication ba tey ba tey kilifa yu bari ma yor seen communication kon moo ma jàng lan mooy communication tàntam ñaar fukki baas la ak juróom kon du tant bu ndaw dafa jël micro ni ma am yaa yor sama micro central te boobu xaw ma woon luy micro central surtout maa nga jox ma ko ci tant mbooloo mi tiim la mbooloo mi tiim la maay joxe parole maay sant maay gërëm bu fa ministre ñëwoon bala ma ko recevoir daf may woo ma ñëw man moom ñu ànd duggandoo ci saal bi ah bi président ma euh, Macky Sall ñëwee ñetti fanu ci yeesam yi berne yi mu def dañ ma sa loxo laa koy teg nga dem yóbbu ko man su ma toogee ay président yàlla ak moom la kon loolooy suma relation ak xalifa bi jërëjëf El Hadj Fall euh, Ndiaga yaakaar naa nag euh, Babacar Soda Ndiaye am na problème ndax euh, El bi ñëw na kon nag foog mu defaraat foog mu defaraat bu baax a baax a baax ginnaaw si man jël si naa samay ñaan moom mu des moom moom moom nag lu mu mën a def na ko gaaw jël si. mel ni Babacar Soda <laughs> sëriñ bu ko am il faut nga waajal sa bopp de. <laughs> tabarkàlla El Hadj Fall ba nga demee dugg jàkkaarloo Kaaba gi jàkkaar jàkkaarloo raw du Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa lan nga yëg foofu tabarkàlla ak ni ma la xamee xool bu woyof dem naa eh, El Hadj njagam Ndiaga ñu bëri xamuñu ko buñ koy gis ci média da leen nax eh, da leen di mais boo ko xoolee ci biir xol bu oyof xol bu bu leer tabarkàlla Fall ba nga demee nii képp jàkkaarloo Kaaba gi jàkkaarloo eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo yëg foofu. dañoo wàcc Medina aéroport médina di jëm suñu hôtel man nit ñi hôtel ba la ñuy xool man maa ngi xool. sooroolu yonent yàlla Muhammad fan laay gisee soorool bi ndeysaan bi ñëw tourné benn jàddukaay benn paa daa ne lee may gis day mel na ni moom laa daan gis ci vidéo yi ma gestu muy jumaa yonent bi bi ñu nee cëpp suñu bagage xaaruñu pour ñu jox ma chambre bi nañu di xëccoo chambre damaa génn daw si jumaa yonent bi julli fa ñaari ràkk daw si rawdu bi foofu noo mën a def jooy est-ce que xam nga ne Muntaga bu ñu lay wax mondial mondial ñu bari dañoo fa ni coupe du monde la mais mondial màkk la am xam nga lu tax mu am màkk mooy nationalité yëpp fay daje. rawdu yonente bi da ngay gis kenn ku nekk façon bi muy ñaanee ak langue ba muy ñaanee te ku la gën a doon mag moo lay gën a xam yonente bi mooy moo lay gën a moo lay gën a jooy man ma xool ne ki ma nabiyen yi daan wax ni mooy kan kiñ ma daan wax ni mooy yonent yàlla muhammad ki yàlla yónni ci man ki alxuraan wàcc ki ki ma gënal sama ndey sama baay ndeke dox naa ay kilomètre ñëw tey ci raw doom boobu mënatumaa téye sama bopp war na barki yonent yàlla muhammad te dama am cofeel ci Seydina Aboubacar dama am cofeel ci Seydina Aboubacar boo ziyaaree yonent bi paa ngay teg ñu ni fa la ñu suul yon euh, Aboubacar Saddiq paa ñu ni Seydina Omar mais li gën a neex euh, foofu ku fa demul yàlla bu mu ump ab jullit yëg-yëg boobu connexion boobu nit du mënu koo nettali parce que yëg gën fa yëg benn yoon nga koy yëg dootoo ko yëgati ci àdduna ji nga li kaaba gi di neex neex di néego yàlla li màkka di barke lépp lépp lépp boo ajee ba pare sa xel dootul demati fenn fenn fu dul delluwaat Medina ci yonent bi pour yow temps boo defaat màkk taamoor la c'est kenn du yonent yàlla Muhammad waaw. Euh, jërëjëf euh, El Hadj Fall ndax bunt boobu mënul woon ñàkk ñu waxtaane ci euh, mu nekk loo xam ni vraiment donc li ñu koy wax rek yàlla bu mu ump benn jàmm ndax xel yëpp koo koy wax ni sax xolam day day sori day xam yow li ngay dund moment ba ak la nga doon dund day mel ni connexion la tabarkàll yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp te it eh, gis nañ ba nga ñëwee itam ñaan nga ñëpp te tabarkàll am nañ xel gu dal ni eh, ñaan yëpp dina jàpp incha allah El Hadj Fall mu mel ni dañuy ñëwaat eh, leneen li nga xam ni da nga nekk jëmm joo xam ni neexul ba neexul jigéenu Sénégal naw nañ ko ci takk ndiggam liggéey waaye fonk cosaanam ci xeetu dundinu doomu aadama lekk wala sax ci xeetu naan waaye daggante sell lool ba tax na adi jus indi leen tamarin di Dakar buy gingembre bissap rouge citron maanaam limon si bouteille bu un litre ci adi jus jus bi foo ko natt ci neexaayam romb na ko je lance un défi di samay wax waxu addi jus la nee na yéen ñiy waajal li nga xam ne moo di élection de 2024 seen campagne yi leer na ma ni ku ci ëpp li ngay jënd yaay falu jiite réew mi incha allah fàttewuma ñii nga xam ne ñu amee mariage baptême conférence ba ci anniversaire gaaw leen gaaw def seen commande contact bi nekk ci 78 101 13 20 wala 77 358 34 66 adresse bi moo ngi nekk Golf Sud Dakar cey addu ju dëgg-dëgg ci gën su mën ko